asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi leen nuyu baax di leen siyaare di leen baa àq di leen baalu àq waaw man la Modou Diop téyër Touba marché Ocass président daayira téyër yi nga xam ne ñoo nekk marché Ocass noo ngi wax nag ci suñu turu euh, président muy Baye Mbaye Sarr mi nga xam ne moo jiite fédération daayira téyër yi ci turam la ñuy wax euh, kon buñ leen nuyoo bu baax yéen waa Leral TV di leen sant bu baax ci seen déplacement bi ngeen def ba ñëw fekk ñu fii ci marché bi di euh, euh, laaj waajtaayu màggal gi ak di laaj fédération daayira téer yi comme nu mu demee. kon loolu noo ngi leen ci sant bu baax maa ngi dend ak ku ñuy wax sëñ ma mbay mbuub mi nga xam ne moo ji moo jiite président mooy président organisateur yi fédération bépp sëñ ma mbay mbuub ak ku ñuy wax sëñ Papa Xaya mi itam ci organisateur yi ak sëñ Souleymane Faye ak ku ñuy wax Baye Serigne Diang tam dëkk Mbacke ak sëñ Modou gay Sarr moom it maître la place mu fii ak ku ñuy wax sëñ Modou kan xam na moom mooy commerçant la waa mais daanaka suñu wàllu trésorerie yi yëpp moom moo ko yore moom it ñoo ngi koy sant bu baax ndax lépp luñ dugg moom da koy ànd ak noonu kon bi ngeen déplacé bu ñëw ñoo ngi leen sant bu baax di xam ne yéen nii ngeen def ah, ci màggal gi ah, kon waajtaayu Serigne tubaa pàgg teefi sëñ Touba la mooy seen télé bi kon noo ngi leen di ñaanal seen télé bi yàlla na ko sa borom yokk ba mu doon ay tele télé ba ngeen fi ngeen ko bëgg a yóbbu sa borom may leen ngeen yóbbu ko fa. di wax ne wax dëgg yàlla nii ngeen def am na solo lool ndax bis bu toll bis bisub sëñ Touba nga xam ne dana bisam yëpp bis bee ko ci gënal ndax dafa waxoon na sunu borom nag ma waajal bis bi nga xam ne moom laay daje jeeg suñu borom mu doon bis yi nga xam ne moom a gënal ci bisi yi muy bisu màggal Touba kon ah, tukki bi nga xam ne lépp lu mu am. ci la ko am dafa waxoon na bis bi saabu bu delsee may yooyu ma sa may maanam da dee cay tegaat yeneen yu ni toll yéen nag sa may leen ab télé boo xam ne da ngeen a dugg ci marché bi di laaj maanaam jëmmi eh, wàccaayu màggal wi. kon na leen leer na màggal gi ni ñu koy waajale mooy dañ daaw ba nga xam ne màggal gi jàll na bis booba lañ ko tàmbalee waaja ba suñ bisub tey bii ñun téer yi nag liñ ci njëkk a def mooy xotti ay yére ñaw ko ba mu yegg teg ko di ko waajal màggal gi waajal nañ bernde yëpp euh, pour gan ñi war a ñëw bëgguñu daal kenn ku fi ñëw koo xamante bi maanaam li nga li la tax a jóg amoo ko kon noonu lañ koy waajale bu dee ci wàllu fédération daayira bii depuis 84 lañ ko son jamono yi sëñ Saliou sëñ Saliou moomu ci boppam boobu sëñ Abdou Lahat ngi fi maanaam sëñ Saliou moo doonoon suñ président bi nga xam ne bu masaa dajale addi yi ba pare dañuy fab addi tek ci loxo mu mottali ko ñu dem yët ko sëñ Abdou Lahat mboole ñoo ndaw waxoon na tam daayira bi képp ku ci bokk da nga mucc kër googu nga ma fekkoon di ma laaj muy kër sëñ Touba gi ah sëñ Sall moo ñu ko joxoon altine junne fa dem bale ko nettoyé ko bu màggal gi jub see nii bu ne ci danañ ko defaraat jënd parfum jënd saabu jënd cuuraay teg fa. li ñuy waajal kay mooy gan ku fa dal gu ne bu nu fi yàlla bàyyeeg li ñu bëgg mooy ku fa dem ku fa dal ku ne booy di ñibbi sax sa paas ñoo la koy jox ndax ñun jëfandikoo ay Serigne Touba lañ ñun moom lañ fas yéenee doon moom lañ doon ci dëkk bi moom la ñu liggéeyal Serigne kon yéen waa Leral TV nag noo ngi ñaan ñoo ngi sàkku yooye nga xam ne ngërëm yu ni sëñ Saliou daalul ko daari ku ci bokk mucc ñoo ngi leen ciy fasaaleel ndax lii ngeen def bokk na ci lii lii yaatal li yaatal mbirum sëñ Touba te mbirum sëñ Touba ku ko yaatal ko ne dañoo war a ñaan saa borom dëbb la kàttan ba nga xam ne foo bëgg egg da nga fa yegg waaw yin gën a faral di ñëw mooy comme yére yee ci kaw mu yére góor muy saani sëñ suñu yoo xam ne dafa murite ndax sëñ Tuubaa dafa bëgg col gu murite ndax yooyu dafa bokkoon sëñ Saal dafa waxoon ne yéen li ma bëgg ci dëkk bi su ngeen ma ci jàppalee danaa ko am muy col gu col gu murite ba nga xam ne ci lañ bàyyi woon sax ñaw ñaw yére yoo xamante bi ku ko sol maanaam say cër day feeñ wala wala wala boo bu dee góor a boo ko solee day xaw a xat ci yow loolu tam sama borom dimbali sëñ Saliou mu yére yee ay sëñ suñu bu la yoo xay ñaw yi murid la ak i bàyyi la yo ànd ak seen tuba yoo xay dañ ko wax tuba yi yooyu moom lañ koy waajale gan ñi tam dañoo bëgg ku dikk ku ne sol ko ba nga xam ne boo demee ci barabu sëñ Tuubaa dana dëppoog col gi sëñ Tuubaa bëgg waaw non ay ay dañ koy ñaw nag di ko jaay ñaw yi dañ koy ñaw di ko jaay nga xam ne ku dikk rek moom dana la ko defal njëg bu murite boo xay dana xéewale dana yomb ba xam ne boo ko solee ñëpp dana xam ne foog gis ka na xam kii colog Tuubaa la loolu daal lañ ci jublu ndax it bëgguñu kenn ku fi ñëw sol loo xee du dëppook dëkk bi ñoo sant sëriñ bi di ñaan sëriñ Muntaxa li mu naal lépp mu yàggale ko te ànd koog moom. ah di séenu nag mbokki taal bi yëpp fuñ ñu mën a bàyyi ko ndax bis bi amuñu lu moom ndax sëriñ Touba dafa wax ne yowmal xiyaam gënu jëm sax ay bis amu fa waaye bu nu fa demee àjjana la muy neex neex bu bis bi ñëwee xéewal yi dana yokk ba ñu xam ne màggal gi moo waral xéewal yii. ña ca sax danañ ne ah xéewal yi waa màggal gi dellu si na kon nunu ñu sëriñ Touba dimbalee ñu dëkkal ko ci dëkkam bi sant nañ Serigne Touba bu baax a baax di sant sëñ Mountakha di ñaanit moom it lépp lu mu ci lu mu ci naal wala mu yéene ko ci yàlla defal ko ci lu lu koy njortam ndax moom day ndimbalul julli yëpp di koo xam ni julli yëpp ko war di ñaanal ndax ñëpp la yéene jàmm ñëpp la bëggal aw yiw kon nag yéeneem jooju yàlla na yàgg ci julli yi ak ci mori yi yëpp ba képp koo xam ne jóg nga jëm si tubaa daal boo yàlla boo dajek dara loo xam ne lu lay gàllankoor la ñu waajal ko it xam ne barab bi bu fekkee sa yaakaari tey ëllëg dafaa ne soo jógee jëm ca am na noo war a mel melokaan woo xam ne dikk ba ci yoon wi wala nga dikk ba ci dëkk bi da am benn gàllankoor gën a lunu ba tax na nun ñëpp nan bokk waajal lool yi nun ñi leen di séenu it ñu doon ay roy waaye bu ñu ñëwee daañu mën a xool ci noonu xam ne lañ leen doon woote kat nun ñi orienté wu nañ jëm ca noona waaye dalak nit it mu mel mu di ca gis yoo xam ne da lay xebat loolu it mat naa moytu ndax loolu lépp nag ñoo ko war a waajale suñu bopp te sëriñ bi dem nun wàccu naag moom ndax dëkk loolu nañu ci dëkkam bi jox nu ay xéewal yoo xam ne it ah xëy na lanu ko yéene lépp duñu ko ne mane waaye nag daan ci mën a berneel gan ñi gan ñii di yéene jooju rek la jam kon nag yal na yàlla yéegal yéene yëpp ah di sant sunu jëwriñ yi joolu nga doon wax ci wàllu coow gi col gi nag jamono bu ne day dëppoog ah, na jamono demee nun ñii métti mi toll woon nañ ci fii ci gone yi tollu waaye nag bi nu ko weesoo teewut gone yi ñu ngi doxal doxaliin woowu di waajal di ñaw jigéen yi nañu ko ni mu gën a muritee rek ndax yére yu moom ku ne xam na ko. waaw nit dana ñëw sax di la proposé loo xam ni su fekkee dëppoo wut ak Tuubaa yaa koy orienté xamal ko ne googu col dëppoo ak dëkk bi nii la ko sëriñ bu bëggee su boobaa it dara cay daal di fekk. loola it mu doon loo xam ne xëy na ay jeexital yuñ bàyyi ci ñoom la moo tax ñu mën a doxee doxin woowu kon gone yi ñu ngi leen sant bu baax di doolee ñaanal suñu jëwriñ Baye Mbaye Sarr di ñaanal kii mënu bàyyee di mut jóob mii ndax mate na ko sëkk di sant suñu bokk commerçant yi nga xam ne ñoom lañ bokk nekkal ci marché bi ndax dañoo mel ni nit ak ay doomi bàjjanam rek. koo place foo fekk téyër boo fekk ci place bu commerçant dangay ngay defe ne moom place ba loolu it yaatal gu nu yaatal suñu diggante ñoom la te lu fi yàgg la lu fi sax la loolu yal na yal na gëdd di wéy di wéy. ñoo ngi leen di siyaare te di leen jox seen wàccuwaay yéen waa leeral TV ndax teewaay bi ngeen teew fii sun kanam nii sedd na sun xool guy te itam li ci war man ne man ne maanaam télé yi ci Sénégal yëpp ñëw nañ ci kanam tey ndax taxawaay bi ngeen taxaw ci sun kanam. ndax lii yaakaar naa yàgg nañ ci marché bi te musuñu ko am ndax yaakaar naa Modou Diop mii du ma du ma bàyyi ma fen ndax fekk na fekkee nañ fi lu bëree bëree bare bëri waaye ab télé bu taxaw fii dinu laaj nuy wax suñu xalaat defe naa tey laa ko fi njëkk gis man man loolu nag dañ koy sant suñu borom te xam ne tawfeexi sëñ Muntaxa jëm doon wax naan yéen ñi dëkk Touba da ngeen a am tawfeex tawfeex ju leen suñu borom defal tawfeex jooju mooy dox ba agsi ci tey ji ndax xalaatuñu woon ne ab téer dana taxaw ba ab télé dikk ci kanamam di ko laaj muy wax ñu di ko jël fas ko yéene tasaare ci àdduna loolu defoon na ne du am mukk kon nag bu ko suñu borom indee tey jaarale ko ci yéen waa leeral kon yéen waa leeral amul leen amul lu leen mën a fayee loolu moom noo ngi leen di sant li sant gi itam nag buñ jógee ci yéen waa leeral yii nii nu leen leerale ñu ngi ñëw ci Modou Diop ak Baye Mbaye Sarr ak Mbaye Mboub mii nga xam ne ñoom ñooy dox guddi di dox bëccëg muy tàng muy taw lu mën di doon ñi ngi dox ci ngir daayira bi ak lu ko doxal ca depuis sëñ sëñ Abdou Lahad ba léegi loolu nag bu fekkente ne ñoom ñi ngi koy dox ba yàlla dogal tey ñu xamante yéen ba indi leen fii tey dañ leen ciy sant ñoom dañ leen dana leen sant yéen waa leeral de waaye ñoom itam danañ leen sant bu wér ndax seenu doxin ak seen seen seenu jot seenu jotale moo nu may lii nu am ndax ñawal man ci ñawi ñawi ñawi ñawi sëriñ ñawi sëriñ Tuubaa ci taayir bi laa ko njëkk a ñawe noo xam ne maanaam lii ci xalifa général de Mouride la jóge dikk ñu ne ko teg sama loxo ne ma xalifa général de Mouride moomoom lii ñaw ko ci daayira bi laa ko njëkk a amee leneen leneen liggéey naa ci ginnaaw sëñ Saliou Mbacke mu nekk ci ginnaaw ci biir keesam ma taxaw ma nekk ci ginnaawam di liggéey daayira bi ma ko may kon nag man li ma njëkk li ma ciy teg mooy nun waa daayira bi nun waa tailleur yi nga xam ne noo nekk ci marché Ocass ak ci Touba gépp daayira bii nan ko teg foo xamante ni teguñu fa benn daayira ndax lii du daayira lii moom lu suñu borom fàggu la indi ko ci suñu biir maanaam jëwriñ yi jëwriñ yi suñ jëwriñ yi mu teg leen ci suñ kanam waaye du loo xamante ne bii ab daayira la wala ndax daayira yi fi sosuwaat tas bari na lool daayira fi sosu tas bari na lool lool lool liñ ne daayira day dund ak dee gëm naa ko waaye nag daayira bi moom dafa mel ne bokkut ci yi dund ak a dee yoratu roo dafa dafa doon boo xamante ne bii suuf ak asamaan lay nuróol ndax ba mu fi ba mu sosoo ba léegi ci kanam laa gis mu cey jëm waaye gisaguma mooy arrière ndax xalifa général bu fi nekk xalifa général de Mouride bu fi nekk woo nga leen jox nga leen liggéey ba tey nag mu ci rawati ci muy ca université baag liggéeyu Baay Faal yeeg lu mu ci mën di doon rek ñii ko jiite woon booba ba léegi ñoo fi nekk ba léegi boobaak léegi 84 la woon ba léegi te booba ba léegi boo xoolee ci ginnaaw li li ci suñ kanam la ñuy gis waaye xooluñu gis nañ ci ginnaaw moo moo tax nga xam ne kon fàggutee bu suñ borom la loolu nag noo ngi ciy sant suñu borom di ci sant sëñ Touba mi nga xam ne moo nu may nu too nu nekk ci dëkk bi bay fekke loolu te di sant nag xalifa général bi fi nekk muy sëñ mu Mountakha am na lu ñaan nag loo xamante ne bii daa bëgg maanaam ñu jox Serigne Touba wàccuwaayam ndax nun téyër lan noo war a def noo ko war a jàppale ci li mu wax ndax bu ay colak daanaka boo gisee dëkk bi li nit di def ci biir mu ne su koo xam li ci bitti lañ mën a xam li ci bitti nag mooy col gi col goo xamante ni bii bu ko nit solee romb la yow sa bopp sa xol di ñur ñuri tàng bit xam nga ne sëñ bi bëgg ko nu yow téere bi boo ko ñawee xam nga ne liis ñi nga ñaw sëñ bi bëggu ko léegi nag bu ñu la ko ñawloo yow na nga xool noo xamante ni moo gën a baax ci li sëñ bi bëgg nga defee ko noonu wala nga wax ak borom ci lii la kat dëgg dëgg moo gën ci li bi bëgg dana nu di xawale jaaxal waaye lépp dañ koy jàpp euh, xëy na waajtaayu bis bi moo nu toll xëy na ñi ko yor seen yéene demewul noonu waaye nag bu ñu dolli woon a jàppale it mu gën ndax euh, yor liggéeyu jàmbur bo seen borom taxaw di la taxaw nga jékki-jékki courant bi nag karaj loolu xaw naa doy waar loolu loolu daal bu fekkee ne moom luñ mën dara la nañ ko ci jéem ndax loolu it bokkul ci liggéey bi ndax loolu yi léeg-léeg euh, courant coupure coupure boobu day yàgg lool. te bu fekkee waajtaay la li war ci waajtaayu bésu màggalu tubaa soo weesoo màggal nga koy waajal jëm déwén waaye nag ba mu des ñaari weer ak ñetti weer wala benn weer nga bëgg cee waajal boo ca waajal la nga cay waajal la ci sooxee rek yéen waa leeral nag yéen a ngi leeral lii ngeen def ak leeral la kon nag yàlla na bi leeral suñu mbir yëpp. di leen yéen waa leeral TV di sant ci jëf ju baax ji ngeen def ah li ngeen li ngeen def nii nit lu mu def sanees na ko caa sant ñu ngi leen ci sant leen gërëm ci leeral gi ngeen ñu leeral suñu liggéey liggéey bii nag dama leen li ma ci wax rek mooy leen eh, Modou Diop mii nga xam ne moom la ko yàlla jaare ci moom copp ci moom man moom ci sama part dama topp ci ginnaaw Modou Diop ak Baye Mbaye Sarr rek ànd koog ñoom saa boo xam ne ñooy ñooy jóge ci sëñ bi ñëw na dama naan Modou job daggal loo ma jox rek ma ñëw ànd koog moom rek liggéey bi saa maa ngi maa ngi ci ginnaaw Modou Diop ak Baye Mbaye Sarr saa bu ñu indee ñaw yi ci laay nekk bàyyi naa samay ñëw fee ba keroog ñëw yi pare. màggal gi yaakaar naa ne mooy dàq màggal gu mës sa ñëw man man yaakaar naa ne mooy dàq gu mës a ñëw ndax préparation bi dëgg ko raa bi niiw na waaye noo ngi liggéey te eh, sëñ bi lim nu santoon def nañ ko ndax ñawi Baye Fall yi bi mu ñëwee Modou Diop indi ko séddale nu ko ñëw nañ ko ba mu jeex ba jëbale ko juróom benn téeméeri complet muy Baye Fall yi liggéey ñëw nañ ko ba kon nag def nañ la sëñ bi waxoon li ñu rek yaakaar naa ni li ñu bëgg daan a am. ah ñaw yi nag moom ñëw na waaye dafa yéex a ñëw instant bi waaw yéex naa ñëw lool te ñaw simple daanaka moo ci ëpp màggal waaw ak ak coupure courant yi yooyu daal sonal na tailleur yi trop instant bi commande moom mënut a pare moom wax dëgg waaye dina tane daal waaw waaye daal coupure yi daal bëri na lu mu ci yàq ndax màggal dafa xat hmm. buñ sañoon daal balaa balaa bala ñu bala ñu dugg weeru safar bi day fekk coupure yi jeex ba pare waaye xam nga Sénégal day xaar ba ci biir programme bi ñu bëggee defar liñ bëgg a defar du sotti chaque année nii lay demee depuis 97 ba ma xàmmee ko ba léegi nii lay demee màggal rek lañuy defar courant bi loolu nag day indi ay soxe yu méttee métti ci ouvrier koor koor yëpp lay jàpp na waaw métti na trop même métti na ci commerçant yi sax. loolu moom am nañ ci yaakaar ndax sëñ Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am daanaka ñun ba benn benn fanu safar lañ commencé woon a màggal ba tey lépp nag sëñ Touba ko waral di sant tamit baay mbay saar mi nga xam ne moo jiite marché bi ak baay Modou Diop lépp luy setal marché bi keroog bisu safar ga rek lañ tàmbale dëkk bi set kon ñu xam ne am nañ ci yaakaar ñoo ngi sant bu baax ndax lépp mbégum sañ Touba la. waa dina ci yàq dara waaye nag lu ñu man ñu ngi koy def ndax wax dëgg yàlla waa Touba ca kanam ñu ngi ŋàcc marché bi démb daa feesoon dell waaye fi ne daanaka tey fekkoo fi ndox. ndax heure bu nu xëyee rek ñoo ngi xool nu mu seteeg nu mu baaxee pour gane sëñ Touba yi di ñaanal suñu mbokkum taalibe nag mu fi bàyyi ko ci semaine bii muy bàyyi Mët Diop bàyyi mu bàyyi Modou Malikaan bàyyi Diop Malikaan yàlla na ko yàlla yërëm suuf sedd fa mu nekk. man nag yàgguma fii ci biir koor gi rek laa fi ñëw di dend ak ay ñi ay lañ man ay tisi jaay fii nii yàgguma fi mais bi ma ñëwee ci mbedd mi nuyoo ñu laaj ma sama tur ma ne leen soxna Mariama Ndiaye laa tudd la ma mujjoo la ma bàyyi Modou Diop na ma. kon yow fii ñun waa Darou Khoudoss rek ñoo ne ci mbedd bi ñun ñoo bokk Darou Khoudoss waa mbedd bi yëpp waa Darou Khoudoss rek ñoo fa nekk Modou Diop mii nag jàmbaar la mi jiite daayira bi jàmbaar ci liggéey ba sëñ Touba bi jàmbaar la ci kër sëriñ kër sëriñam chaque altine bu bu jot kër sëriñ Touba lay xëy bu fa jógee deram gi ni mu takkee deram gi noonu di bale ji noonu lay toogewaat ci palaasam liggéeyal ak njabootam jàmbaar la bu baax ku am yërmande la man sama place bi fii parce que du fi toog damaa am beneen place ci bitti waaye lu ma luñ may defal fii nii ci ci place bi moom moo ma koy defal wala mu woo ma téléphone na ma am nga ay clients yu fi nekk kaay kaay fii ko mën na ko jaayal ma leen borom xol bu rafet la daal ku baax la ku laabiir la yàlla na ko yàlla wéral yàlla euh, yàgg kook ko sëriñam barke sëriñ Tuubaa màggal gi moom ren lay ren lay dàq bii nii nii màggal gii nii mooy dàq màggal gu ñu mas a màggal incha allah